asalaamaaleykum mbokk yi tey la àllarba ñeenti fan jumaada saani muy weeru maamu koor ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ci gàddaay yonente bi salallahu alayhi wa sallam dëppoo ak ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru décembre ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ñaar ñeenti fan bokkul ci lim yu fàtti lim bu rafet la kon tey ci àllarba ji rafet na lii ci gën a mooy ku ca daloo àllarba ju nekk nag dees seeti rek nag wàccandiku ku wala ku ca fóot wala ko ca sango wala ko ca tàggoo ñaanuk bis bi yow sama boroom yàlla na ma jéggal yàlla na nga ma baal yow yaay baalekat bi tey yërëmekat bi rabbi xfir li wa tub alayya innaka anta tawaabu rahim rabbi xfir li wa tub alayya innaka anta tawaabu rahim xadis bi bis bi na ci abdullahi ibnu omar yàlla na yàlla gërëm leen mu ne nun day daan nañu wëññal yonent bi ci benn jataay téeméeri yoon muy wax rabbi firli wa tub alayya innaka anta tawaabu rahim xadis bi abu daawud génnee na ko an abdillahi ibni omar radiallahu anhuma qaal in kunna la naudu li rasulillahi salallahu alayhi wa sallam fi lmajlisi alwaxidi miata marra rabbi xfir li wa tub alayya innaka anta tawaabu rahim axrajahu abu daawud waxtu julli